l'élection a été une fête, ce jour d'investiture, d'intronisation est une fête du nouveau président, mais également une fête. Également les Sénégalais, oh, oh, c'est l'occasion également pour les Sénégalais de dire merci au président Macky pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Euh, aujourd'hui, il part avec le sentiment du devoir accompli. Beaucoup de réalisations ont été faites au niveau du Sénégal sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan universitaire Euh, des grilles du palais de la République. Khalisek, je vous, juste, je, vous, je vous laisse commenter juste le temps de reprendre l'entrée en fonction du président. lii nag mooy euh, kilifa gi nga xam ne moo doon président Bassirou Diomaye yegsi na fekk fi kilifa mu doon président Macky Sall lii mu nekk loo xam ne nii c'est des moments extrêmement importants dans la vie d'une nation ndax nag euh, askan wi ci boppam ñoo yor seen seen sañ-sañ. ñooy jébbali itam seen sañ ñooy jébbali itam la nga xam ne nii moom moo doon euh, daanaka cër ba ñuy joxe tey jii nag njiitu réew mi di président Macky Sall réew mi jébbal nañ ko cër mu doxal ko ba réew mi ne ko jaajëf nag tey jii ñu dénk ko nag ki nga xam ne moo doon président Bassirou Diomaye Diakhar Faye gis nga ko tey jii euh, daanaka ñooy war gawar ak ñi nga xam itam ñooy war mobile di ak woto yëpp ak ñi nga xam ne ñëpp itam war dar nañ ko ngir xamal ko nag ne ko nag mbir mi nag tey jii bés ni ki tey tolloog ñaari fan ci weeru nekk nii mooy bis bi nga xam ne nag yaa tudd président de la république du Sénégal. parce que Kavalaghi xaale. waaw loolu mooy mooy gawar gi. mooy gawar gi di mandargaal rek la solennité de cette de cette manifestation. la solennité raison pour laquelle le conseil constitutionnel s'est déplacé aujourd'hui mhm. alors au niveau du centre international de conférence Abdou Diouf pour euh, que euh, présider la cérémonie de d'investiture c'est une cérémonie qu'on a l'habitude de voir ici. au Sénégal et ailleurs et c'est presque le même cérémonial empreint de solennité et des moments extrêmement forts. Et euh, ça c'est un détachement également de la garde présidentielle, c'est ces gardes rouges avec cette escorte euh, cavalière euh, de la présidence de la République. Alors ces chevaux que vous voyez, ce sont des chevaux qui sont très bien entretenus et qui euh, sont entretenus euh, et qui se trouvent au euh, le camp Euh, Samba Djeri Diallo de Colobane. C'est là où se trouve en tout cas le centre de commandement de cette cavalerie présidentielle avec des chevaux euh, qui ne sortent que pour la circonstance. Euh, ce jour comme celui-là, ces ces chevaux la cavalerie présidentielle et a fête de l'indépendance également. amee gan ñu gan ñu kawe ñu ñu fonk mu nekk ay visite officielle yoo xam ne dañu koy mandargaal loolu ndax li yëpp daanaka luy darajaal suñum réew la booy darajaal nangu mbaa mu génn mbaa mu am itam gan goo xam ne itam dafa tolloog moom dayo mu koy teeru kon dañu koy génneel ne ko kat tey ji nag lépp lu ñu amoon ci ab taar lépp lu ñu amoon ci yére république bi dañ la koy génneel xamal nag dañ la koy lalal ndax lii xam nga dañ koy yàgg di gis daanaka boo xoolee euh, yenn kilifa yi mbaa sax ñi ñu ñu wéyjur yi bu ñu julli ji woon ba ñëw dañ leen di lalal ay siru dénk ngir xamal leen ne kat tey jii bisu feet la tey itam dañ leen a war a sargal dañ leen a war a jox war ma ak gëdd bi nga xam ne moom moo tam kii itam loolem lu république bi am ci lu rafet ci lu taaru ci lu sell ci lu yell ci loo xam ne itam dafay mandargaal taaru réewum Sénégal dañ ko koy lalal ne ko nag kat lii yaa ko yeeyoo eh, ba nga xam ne itam noonu ndax loolu Sénégal moo ko bëggee nii ñu defee ko comme on dit la République c'est pareil de ses plus beaux atours hein, avec euh, les bou le boulevard qui est décoré aux couleurs du Sénégal le drapeau national que vous voyez partout euh, sur le boulevard de la République l'avenue Léopold Sédar Senghor le euh, drapeau national tricolore euh, la garde cavalière présidentielle, la cavalerie présidentielle qui escorte euh, présent euh, le nouveau président de la République. Là, il est en train de. Ah, mais mel na ni mbir ma ah, ci biti ah. a y' wax dëgg yàlla génn nañu. Hmm. di wane rek ne lii ci taaru Sénégal di wane rek lii itam ci bisu mbégte ndax foofu ci la ñu toll ndax réew mi moo ko laaj réew mi itam moo ko doxale noonu Sénégal itam ñoo ko doxale noonu kon bu li amee ñu am itam lu mel nii te mu mënoon a demee neneen te suñu borom itam fegal ñu loolu kon dañuy delloo lépp xeetu delloo njukkal suñu boroom la rek ak xamal itam di ñu may lii kon nag li ñu may lii dañ koy téeg suñu fukki loxo ndax bu ñu ko téeg suñu fukki loxo amaana Euh, ba tam du ñu riir du ñuy jéng du ba. li nga xam ne moom moo tax rëcc on assiste euh, un très beau spectacle ce défilé des cheveux du ce détachement de la garde présidentielle euh, l'escadron morte monté donc euh, avec les chevaux euh, c'est une parade extrêmement belle que vous voyez avec euh, leur tenue rouge ces anciens spahis avant l'indépendance du Sénégal okay, garde la presse est venue nombreuse les populations de Dakar sont sorties massivement euh, pour saluer le nouveau président et remercier euh, le président sortant, son Excellence Monsieur Macky de très belles images de la garde rouge euh, présidentielle avec cette cavalerie que vous voyez à l'instant, ici à l'avenue Léopold Sédar Senghor, boulevard de la République. Il parade parce que c'était un moment de communion entre le président de la République et le dans peuple. les le véhicule est déjà là et on laisse la cérémonie protocolaire. Presente! Stop! Stay. On voit les coups de canon qui sont en train d'être attirés.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 Voilà, le lieutenant John Michel Ndiaye qui rend les honneurs au président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Excellence, mes devoirs, vous l'avez entendu, je vous le disais. Et là, le président, il monte sur le perron, il monte les escaliers. Il est accueilli par son Excellence Monsieur Macky président de la République du Sénégal sortant. Nous vous laissons vivre ces images solennelles. Voilà, le nouveau président élu est là, son Excellence accueilli par le président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Alors, tout un, euh, toutes de belles images hein, avec. Une poignée de main, plus accolade. avec euh, le blanc vêtu du président. de la, main dans la main. La main dans la main, Les deux chefs d'État se qui viennent ici se dirigent. Il y a deux bâtiments. Et le, le chef de l'État qui le présente ses collaborateurs. Il y a le président de l'Assemblée nationale, Amadou Diop. Ensuite, il y a le pr premier ministre, Maître Sidiki Le président élu, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui salue le premier ministre, Maître Il salue également le président du Conseil économique, social et environnemental, euh, Abdoulaye Daoud Diallo, le directeur de cabinet, le ministre Oumar Samba Ba secrétaire général de la présidence de la République Mouhamadou Makhtar Cissé ministre de l'Intérieur maître Oumar Youm ministre des Forces armées le président du Conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara le chef de l'État lui présente euh, tout à l'heure euh, le nouveau président élu le cinquième président ils vont se diriger au salon musique où va se dérouler euh, l'accueil la poignée de main là ils se dirigent au salon musique hein. c'est toute une histoire euh, que renferme le palais présidentiel. Vous savez, il y a deux salons. Le salon Gambie qui fait face au salon musique. Là, ils sont au salon musique. Parce qu'il y a bien entendu le piano de Philippe Maguilène Senghor qui est juste et qui est joué là-bas. Le piano, c'est pourquoi on l'appelle salon musique, pour ceux qui ne le savent et la poignée de main est là avec le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qui accueille son autre ici à vous. Voilà, cher euh, Bamba, nous les avons donc euh, vus confortablement s'installer alors euh, au salon euh, pour certainement éplucher certains dossiers et puis euh, euh, passer en revue alors certaines questions brûlantes de l'actualité. Certainement, le moment ne le leur permettra pas. mais c'est des moments de, de salam alek, c'est des moments également. Alors de félicitations, certainement le président Maxal il est en train de dire, mais voilà, mais maintenant vous êtes au niveau. Alors euh, de la station présidentielle, comme le disait l'autre, et que c'est ça la République, c'est ça la démocratie. Je vous félicite ouais. et je suis content de vous accueillir et certainement de vous remettre d'un moment à l'autre les clés alors euh, de ce symbole de la République qui est le palais de la République. Voilà, euh, c'est un tête-à-tête -tête que ouais. nous avons euh, l'habitude de voir entre euh, le président de la République et son aujourd'hui, s'agit d'un hôte exceptionnel qui va, euh, dans un bref euh, instant, euh, prendre... Euh, il est le président de la République maintenant. Désormais, il faudra dire son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar qui est le président de la République. Il a été donc intronisé et tout, il a maintenant toutes les charges présidentielles, toutes les fonctions présidentielles. Vous avez l'écharpe, vous avez le collier du grand maître, vous actuellement, il a tous les attributs du chef de l'État. Et donc, actuellement, il est là, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Djahar Faye, cinquième président de la République, qui est là et qui a un tête-à-tête -tête avec le président Macky Sall, président sortant, un tête-à-tête -tête qui se déroule là au salon musique du Palais de la République. Euh, beaucoup d'humilité on l'a son discours, euh, beaucoup de courtoisie à l'endroit du chef de l'État sortant. Euh, ce sont euh, deux hommes qui s'apprécient. C'est la démocratie sénégalaise, c'est le Sénégal qui triomphe. voilà. nous allons revenir tout à l'heure avec la sortie du président Macky Sall, qui sera raccompagné jusqu'en bas par le président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la fin de cet état tête xaali. waaw xam nga àdduna mi ngi nii tey ndeysaan ñaari kilifa yi ñu ngi toog. di waxtaan di ndokkalante di nuyonte di siyaarante di tatagalante loolu mooy àdduna tey jii nag li nga xam ne nii at yi ñu génn moom la président Macky Sall takkoon mu doon màndargaay réew mi tey jii moom la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye takk ñëw